Fidèle Info, votre chaîne de préférence. Sëriñ Tuubaa nag xéewal la goo xam ku ko Yalla baxé war nga xam bu baax li la yàlla defal te fonk ko bañ ko bolé ak dara ndax Yalla mi ko bindu moko ko defal fitra salima teel ko won yoon wu muy jaar ca teel ba muy jukk alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakka seen nu jabaaw noonee la nekk woon ak i waajuram ba jaaxal leen ci ndawam di taxaw guddi di doxe doxe noo xam ne miinuñu ko ci ku toll ci atam bu ñu tollee ci xàmmee tegu ci yoon wi ko ay waajuram sóob ci ci nangu ak sàkku xam-xam te la ràññiku lool ci lu baax ak xam-xam féete kilifa fam fépp yoral ko daara ji ba mu demee ba jisatu leen mu soobu yoonu gaa yi yàlla yi yàlla defal ko yitte ju kawe mu jóg ne dann rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def ko wasilam dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li samadi fu ko xetam xeeñ mu war ko fa loolu waral fi mu jaar fépp ak wirdi yu mu jël yëpp ba keroog ba muy dajeek moom sallallahu alayhi wa sallam di jaayanteeg moom ubayiul yowma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa أحق جملة الورى بخدمتي بالنظم والنصر رسول الخدمة ca loolee la sax mu jural ko bakkanam ak dundam ak léppam billahi lasi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati xarakaati wa sakanaati maha sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu jaral ko ñu génde kom réewam ak ñooñam ak i taalibeem xusóoriya xallat wal ahlu hanni tafarraxat bi matxi lasi xanhu lmadihu qasiru ba mu nekkee ca loxoy noonam it taxut mu taxut mu salit la mu waxoon ak Cheikh Ibrahima Fati aduduhil ayman ne ko tubaab yi daf ux sax mosuñu ko dégg ci man lu ne mu jàng mu jànkonte ko fa nattu yeneen ñu teg ko ko mu jaayanteeg boromam ne ko lu nattu diis diis ak lu mu tar tar dinaa ko dékku boo ma sàmmalee ruugi mu sax ca loola ba ab liggéeyam mat yàlla delloosi ko mu ñëw di xettali jaam yi di leen wan yoonu te tey ak ëllëg ijaal rujuu'i ilaa qawmi saadatana wal takfina yowma jamhil xalqi niirana ci noonu lanu xàllal yoonu mucc tey ak ëlëk kon moom li mu nu andil du ay théorie ak ci xalaati neen waaye dafa sóobu ci yoon wa ñëw ànd ak ndaw ñëw ànd ak solution ci sunuy jafe-jafe man shakka fi dalika fal yu ومن يجري باء بالتخرب أقبلت الدنيا إلي قبل وبيعتها فسأل عني الكبل نبهتكم مهن على كد برا لي قبل أن أرى رضا مؤبرا نعم ما يلين دي يدلين خملنا دوغنا لما نين فوك يو خملنا ما ينك تي ديغنت لما نسكرات اك بامبل لما ген رك دوغ سي باتي ديواني لول ديواني فيمو جار دور ام لي sëriñ bi dafa fekk ñaar yoo xam ne falasifa ak xeltukat yi ak waroom xam-xam yi mooy seen yitte jëpp te ñoom ñëpp a gàkk muy nu ñuy fexe ba defar nit ku baax ak nu ñuy fexe ba defar société bu baax te mucc ayib dale ci ñi fi jiitu woon ci ay civilisation ba ci tubaab yu fi tubaab yu fi mujj ñoom ñëpp loolu rek la ñuy jéem indi solution te mu tëleen tëj ndax lool yàlla mi ñu fi indi rek moo ñu mën a wan fi ñu jaar ba am ci solution wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan ulaika allazina hadallah hadahumullah fa bi hadahum muqtadi moo tax Serigne Touba bu ñu bëggee wan nit ñuy defar nit ku baax danoo delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmil axir ci noonu mu indil ñu modèle murid saadix mooy nit koo xam ne ay yëngoom akuk dalam ay waxam Aki jifam ay defam ak i didem len len dong la cay xaar am ci mo borom fuma ma met ca la yem kon jëmu jume nonu nak lu nu ngir mana jagal aduna ak àllaaxira ak defar suñu aduna ak suñu wéyee jak model bi modèle bii Serigne Touba andi ci aduna mu model modèle Modou apuna ëpp na li ñu naan citoyen situ ndax citoyen wesul weesuwul adduna ak lu ko jagal waye Modou Sadikh nak li mu làmb mooy luy yéwénal sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa morom ak sa digganteeg sa sëriñ ak sa digganteeg sa sa digganteeg adduna ak sa digganteeg alaaxira ba ci sa digganteeg la ngay fekk sa biir bàmbeel atas sab dinoo la si koo addina si huwa kon nañu xam li ñu ak fi mu jaarle bu baax ak leneen ak len ak ak ak ak ni gàggantee adduna ci yoon wi ñu jaar ba ba defar modèle nit ku baax sëriñ bi dafa indi tontu ngag bu jaaxaloon waa àdduna sépp mooy ni ñu fexee ba tabax aw xeet wu mucc ayib loolu it ni mu defoon ca ca bu njëkk bi rek la defaat mooy walla wala warduhu ila rasul wa ila ulul amri minkum la alimahu lasiina yastanbituuna minhum moo tax mu wax ne إلى الله بالقرآن والسنة التي حددني شرفت الكل والخلب خاشو القرآن نك لم يشتون تموي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم حسن مآب لول نك دا لاج ديغن خوت سي القرآن دي لاج مفهوم المخالفة تموي لا نك سي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لولو لا ني سيرين بي دخيل سي دكم بي ak philosophie philosophie bi ko laytaay te mooy taxawal société ci baasu iman ak al amalu saalih ci maanaam mi gën a yaatu nga xam ne laa moo ne lépp lu baax lu yàlla gërëm te mooy jëme nit ki kanam te de te te lépp luy jëme nit ki kanam da cee duggaale loolu lanu lanu sëriñ bi daxañal ci mashruuxu Matlabul Fawzayni mu mu moo da jàll fi mboolem principe yi jegal dundu doomu aadama ci àdduna ak alaxira bayu kon sëriñ bi li mu ñu andil rawoon na ni xalaatkat yi di tërale ci àdduna dañoo xàllal yoonu mucc yoonu defaru yoonu suqali ko tey ak ëllëg ki ki fi def jalooru jëre ji nag mooy sëriñ Tuubaa haasa xalqullahi fal muta kafafan kafafan yektafi sëriñ bi daa wax ne misaalu murid saadix fibti daa islaamihi kasabi yëli si yaxruj min badni ummihi mu ne murid bu door a sóobu moo ko xale buy door a génn ci biiru ndeyam ñooyam mu ne xale buy door a dox am na amul am na lenn lu ko mën a may kattan lu namp soowum ndeyam bu ko bu bu nanguwul a namp na muy def xanaa wuy ji boroom rek mu ne nan lay nan la ndey di nampale doom ju mu tëg doom ju mu të bët mu teg ci ne ku ne mu ne ndey ju ne mu teg ci ne gone bu ndeyam bare soow kooku xool xam ko daa bëgg na ngeen xam ne seen ndey jii am na soow mu doy mu doy sëkk tëru ko tëru ko jeexle ku nàmp ci moom danga am kattan da nga am xel kon tok leen ci sen day ba mata fer way bu len fere le yit bu len dem di lek suuf ndax kuy lek suuf te bëwoo ko faw nga tawat te tawat moy waral Fidèle Info, votre chaîne de préférence